waaye bokk na ci timit def ci ñoom pas-pas di pas-pasu diine boo xamante ni dina leen dàqal xalaati ñi nga xam ni ak gis-gis yi nga xam ne yu baaxul la yu leen di yóbbu ci réer la pas-pasu jullit pas-pasu lislaam bu set bu sell bu nit ki di gëm gëm yàlla ngëminu yàlla bu wér gëm yonente bi alayhi salatu wasalam ngëmin bu wér xam kan mooy yàlla ci moom xam kan mooy yonente bi alayhi salatu ci moom loolu nekk pas-pas boo xamante ni dafay nekk ci jullit bi nga xam ne ndaw la ngir mu mën a tegu ci njub mën a am diine joo xam ne diine ju ñoŋ la exemple bu ndaw rek buñ ciy joxee dimanche bi passé lan moo fi am ci réew mi mu nekk coow lu rey làmb yaakaar naa fi suñu réew toll ak situation bi ñu toll lu mu sensible ak li ñu fi jànkoonteeg ci ay jafe waroon nañu tal heure bi ñu toll ni leneen dul nekk ci ay làmb di coow bi waroon na fekk ñi fi nekk naan dañuy jongante ko xëccoo réew mi ñuy toog di waxtaan ci aveniru réew mi ak kenn ku nekk lan la nar ci réew mi buñ ko ko joxee lan mooy sa programme lan mooy sa vision ndool bi nekk ci réew mi ñàkk gi chômage bi lan nga ci indi comme programme comme solution xale yi di génn di dugg ci géej gi di faatu lan nga ci bëgg a indi pour solution nangam sàngam ñu toog di waxtaan ci loolu askan wi di leen déglu waaye defuñu loolu fi mu nekk nii ñu ngi ci làmb jeeg yu mel noonu ci lañ nekk ci la ndaw ñu nekk ñu jël leen sóob ci yu mel noonu kon yaakaar naa bu ñu nekkee tey fi ñu nekk nii ci jafe yi ñu nekk waruñoo bert waruñoo jaaxal bu fekkee dégg nañ bu baax a baax xutba bi ci ne mbir mu nekk boo ko bëggee dangay jaar ci sabab ba la cay yóbbu yaakaar naa lii ñuy witt tey di ko lekk mu wex xatt suñu gémmiñ ñun ñoo ko ji nit ku nekk nag li nga ji rek loolu ngay góob bu ñu bëggee suqali ko yëkkati suñu réew lan lañ ji lan lañu def yan acte la ñu posé waaye sax xoolal loola ba mu amee ñu gis ca kenn ci ñi nga xam ne ñoo nekkoon ca làmb ja coow lu bari lool ci mbiram lan moo ko waral da daan takk ay xarfa fuufa da daan takk ay gàllaaj da daan nàngam ñu ne bàyyi na ko léegi ndax léegi day góorgóorlu ci wàllu diine day sellal ci lislaam réew moo xam ne nañ réewu jullit la quatre-vingt-quinze pour cent musulman ñu naan mooy réewu diw ak réewu diw ak réewu diw di bàkk lislaam bi fi nekk nit ku daan jël ay gàllaaj ak i xërëm ak ceddoo di ko def ba jamono mu ne bàyyi na ko ndax lislaam bu muy bëgg di góor góorgóorlu loolu mën a nekk problème nekk scandale ci réew mu mel noonu ba nit di ci coow loolu mooy lislaam ba setul lislaam ba sellul bu ñu déggoon lislaam dëgg-dëgg xam ko xàmmee lan mooy lislaam ak lan mooy ceddo bu ñu gisee lu mel noonu dañ ca waroon a bëgg di encouragé kooku di ko ñaanal ngir mu nekk exemple ci jeunes yi ñu jël ay tànkam mais boo déggee wax yi nga daan dégg ñu koy wax te bu yàlla defoon loola mu doon ut ca làmb ja mu amoon ca defet doon nga fi dégg façon wax ju ne di nga ko fi dégg ci réew mi ci ngay xam ne ba léegi ceddo gi mi ngi ci nit dina ju leer ci ñoom ndax ba léegi jëfi ceddo yi nga xam ne mooy xërëm ak ca ajoog ci wàllu njabar ba léegi nit ñi mënuñu koo bàyyi ak fi ñu ko teg mu bokkaat ci sàmmal jeunes yi seen i valeur def ci ñoom ay jikko yu baax def ci ñoom jom loolu mooy waral ñu am ay jeunes yoo xam ni dañuy jug am jom futteeku di góor góorgóorlu te li ñuy def ñu koy sellal di ci ut lu baax di am lu ñu cay seet ci lu baax ak di am lu ñuy moytandiku lox nañ koy seexlu ndaw loo xam ne soxlawul alalu jàmbur ndaw loo xam ne kenn du ko corrompre wa hakada loolu ay valeur moo ko mën a delloo si waat ci ndaw ñi